salaamaaleykum internet Lutte TV com ñu ngi leen di nuyu bu baax ku ci nekk ci turam ak ci santam tey lundi 2 novembre 2020 ñu ñëwaat ak yéen ci yéen kaay ma ci ànd ak kor mam Boucar Ndour maa ngi lay siyaare. Omar maa ngi nuyu di la siyaare di nuyu mbokk Sénégal rawatina mbokk internet Lutte TV ni nga ko waxee rek tey la le 2 novembre 2020 ñu ñëw ko yéen si yéen kaay noonu la demee ñu ubbee ko ak suñu làmb mu daal di ñëw ak ñun ci équipe CNG bu bees bi nga xamante ne nii dinañ ko fësal du yàgg dara incha allahu rabbi. mu am ay quelques révélations yoo xamante ne ni journal bu suñu làmb def na ko. waaw mu mel na xëy ci bureau bi am na yeneen yu bees yeneen yu bees yoo xamante ni tey maanaam andiwaat nañ ko ay coppite yu bees yoo xamante na nar na am ci ci ci ci bureau bi Omar. nar na am ci bureau bi bokk na ci directeur technique national indi ancien arbitre bi Khalifa Sow. waaw Khalifa Sow nag bi ma juumul maanaam moo ko nekkoon ginnaaw bi nga xamante maanaam kii di kii di Abdou Badji na woon moom Khalifa Sow moo jiite woon arbitre yi waaye moom lañ jëloon rek tabb ko li nga xamante maanaam moo di directeur technique national waaye dafa mel ni maanaam moom dañ ko nar a confirmer si si si si directeur technique national boobu noonu loolu la journal bi di xam la Omar. wala Manga 2 ñoom ñaar kenn dina ci jiite li nga xamante ne moom mooy lutte simple bi waaw Yaxya Joob Yékini wala Manga 2 kenn dina ci jiite lutte simple bi yaakaar na ñoom ñaar kuñ ko si jox tamit maanaam tey am nga am am am nga si am nga si maanaam tuuti responsabilité wala am nga wala yelloo nga ko ni ñu ko mën a waxee rek maanaam tey mën nga ko gérer xëy na nit ñi dañu am ci yow yaakaar pour dénk la ko waaye képp ko mën a yor rek si ñoom ñaar ñooñu maanaam na fi nekkal lutte simple rek fexe lutte simple dox gën a dox mu ngi dox na gaawaay ne gën a dox lu si mel ni rek maanaam 1000 francs yi nga xamante ni mbër yi dañ koy bindoo ba démb démb rek am na mbër bu ma woo di di di ko kaas maanaam mu nekk loo xamante ni tey maanaam crise la boo xamante ni mbër yaa ngi koy dund te buñ ko sañoon avant dara 1000 francs yi mbër di teg pour bindu ñu dindi ko Omar dina métti trop ndax booy ñëw da paas booy bëre da fay te boo daanoo da ñibbi wax dina métti trop mu nekk loo xamante te yaa maanaam tey képp kuy dund làmb laa la wax nag Omar maanaam rafetlu woowu geste boobu noonu ñu def tey ñu ànd si si si mu nekk ab coppite bu ñu ànde woon ci làmb mu nekk nag mu nekk wala tey maanaam ñëw fi tey maanaam tey ngir ngir ngir escroquer mbër yi parce que loolu man escro escroquerie lañ ko mën a jàppee mbër ku xam làmb ni mu jaar ci làmb tey mbër bi entraîné di financé si a bindu laaj 1000 francs yu mu yaakaar naa ne Omar ko si benn sport ci làmb rek la am Boucar waaye li nga xamante ne moom mooy lutte olympique ki ñu ko bëgg a jox moom mooy Elisabeth ñu ko ko joxee dina ko yelool mu mel ni rek dañ bind entrée des femmes si biir biir li nga xamante ni tey maanaam moo di bureau CNG moom ali moom Elisabeth nag yaakaar naa ne tey du gan ci ci làmb nu ñu ko mën a waxee rek rawatina nag lutte olympique parce que yàgg na dem di représenter Sénégal ko gis nataalam bi ci biir journal bi gis médaille yi mu wekku nga xam ne te yàgg na dem yàgg na compétir waaye mhm. yàgg na am ay nekk fierté pour Sénégal bu ñu ko dénkee lutte olympique jox ko moyens yi tamit parce que am solo maanaam bu moom Elisabeth Sambou tey dina relever défi bi dina yóbbu flambeau bi fi nga xamante ni tey maanaam fa war oyofal yéen bi ci kawam amin lañ ciy teg waaye moo tax journal bi ne la nouvelle équipe officialisée avant le mercredi prochain incha allah. waaw dans les normes tey la waxoon ne tey maanaam tey la installé bureau CNG bu bees bi tey la waxoon waaye xëy na ak remaniement ministériel wala remaniement bi dugg si diggante bi ni ñu ko mën a waxee tey changement gouvernement bi dugg si diggante bi xëy na looloo nar andi décalage bi rek waaye Matar marché bëriwul lool lool lool mais nag ñu ngi ñaan yàlla rek euh, xëy na fii ak suba gars yi dinañ wax lu leer jox ki ñuy tabu CNG waaye tamit jox ko li nga xamante ni ne moo di bureau parce que su ma ko fi tegee maanaam moom moo choisiroon bureau te amaan nag ministre bi comme mi ngi consulté xëy na am na ñu bëgg tànnal boppam na loolu yëpp nekk loo xamante ni maanaam day nar a tax nag maanaam coow du du am maanaam fëlëg ak si biir. dina nekk lu am solo moo tax journal bi ñëwaat ci li nga xamante mooy waajalu président bu bees bi ndax boo xoolee démb ñu bari yaa yaakaaroon nañu ne dina am ay yenn ministre yu wàññeeku mais la président bàyyi nañu fi ki nga xamante ne mooy Matar Ba moo tax ñuy laajte rek ndax te moom dina yeggale li nga xamante moom mooy recevoir yi mu recevoir nit ñi ak defaraat bureau bi ci lundi. waaw ak defaraat Omar mu mel ne rek maanaam tey consultation yi da ko nar a poursuivre loolu la journal bi xam le rek su ne daal tey war na recevoir ñi nga xamante ni maanaam mooy di les internationaux de lutte ñooñu yaakaar ne bokk na si ñi nga xamante ni nan na leen recevoir tey waaye daal ba tey mu ngi recevoir waaye daal bëgg nañ daal mu recevoir le maximum parce que comme da leen di recevoir rek laaj leen seen xalaat te xel du doy le maximum possible bu leen mën a recevoir maanaam na leen recevoir ñu ku nekk wax ko mën a waxee kon loolu dina si gën a am solo. est-ce que jàpp loolu itamit war naa recevoir ñeneen ci parce que ñoom itamit waaw ñu bëri Omar ñu bëri tey boo waxee jëkkee sa bopp rek nit ñi mën nañu gisee neneen waaye tey man gisaguma mu mu recevoir kenn si njabootu lutte simple tey man leer na man tey man tey lutte simple tey xam naa ne fii ba Passy fii ba Joal fu simple am tey li si ëpp lu TV day dem te bokk naa si lu ñu ko gën di teewal te daal di dama fay gis lu may métti dama fay gis lu jaarul yoon dama fay gis tamit lu teguwul si yoon muy côté CLG maanaam tey ñi fay représenter CLG muy côté mbër yi xam nga muy côté ba si tëggkat yi ba ci wuykat yi pour man ñooñu ñëpp tey maanaam tey war nañ leen mën a recevoir wala ñu recevoir seen représentant ngir rek lépp lu améliorer làmb parce que tey boo tëggee làmb tey te tëggkat ñëwul wuykat ñëwul làmb bi dina géey te ñooñu ñëpp yaakaar naa si njabootu làmb lañ bokk moo tax tey maanaam tey bu ñu bu ñu rek bu ñu rek maanaam bu ñu yem ci ñi nga xamante ni rek maanaam ñoom lañ ñi ñi di gis tout hmm. solo torop waaye Boucar beneen combat bi nga xamante ne moo fi bu yàggul diggante Boy Niang numéro 2 ak Tapha da ko tuddee adversaire en commun maanaam adversaire yu niroo ci ñoom seen diggante ñoom ni tey ku si nekk ndax ñoom ñaar ñëpp dañoo daan ki nga xamante ne moom mooy Sakajor numéro 2 ñoom ñaar ñëpp dañoo bëri ak guy gi daan ko ñoom ñaar ñëpp dañoo bëri ak Zoss daan ko Boy Niang numéro 2 Tapha Tine da koo Lac de Guiers 2 da koo daan Lac de Guiers numéro 2 tamit dafa daan ki nga xamante ne moom mooy Tapha Tine na ko xamante ni tey maanaam moo di Tapha Tine daan waaye ki nga xamante ni tey maanaam tey moo di moo di Boña tamit dafa daan ki nga xamante ni tey moo di saakajoor daan guy gi waaye moom Boña jos da koo daan jos moo ko daan waaye Tapha Tine nag moom Boña tamit ni ñu mën a wax rek dafa daan dafa ñàkk combat digganteem ak Lac de Guiers si si si recours. Mm-hmm. mu nekk loo xamante ni maanaam tey ay ay point commun la ñu am wala ay mbër. yoo xamante ni tey maanaam dañ ko bëri en commun loolu yëpp xëy na da leen rek waaye boo seetloo daal côté nombre de victoire seen diggante ñoom ñaar tey tafaatin mën nañ ne tey moo si ëpp mbër yi daan waaye li leer ba mooy ko ne moom moom Boña am na si ñaari défaite moom tafaatin tamit maanaam am na si am na si benn defet digganteem ak Lac de Guiers 2 waaye nag ñaari champion la ñaari ndaanaan la loolu yëpp tamit maanaam ay ay ay analyse la ñu ko mën a waxee wala ay pronostic la rek par rapport ak seen performance waaye ku si nekk yaakaar naa tey am nga lu mën a daan sa morom. ñoom ñaar am nga lu mën a daan sa morom te ñoom ñaar Boucar dawe bi bu ñu simeekuwee ñu bari jàpp nañu Tapha moom moo koy ëpp mais est ce que dina ko ëpp doole. waaw en tout cas li leer ba leer mooy ko ñaari xale la rek ñaari ndaan la rek seen différence d'âge bëriwul. Mhm. ñoom ñaar tey maanaam tey ñoo ñoo ñoo ñoo bokk même génération nañ ko mën a waxee. li ñaari xale ku si nekk tamit bëre prouver ba yegg si fi nga yegg si te ñoom ñaar te combat bi ku si daanoo tamit maanaam tu n'auras pas démérité tu n'auras pas démérité parce que tey yegg nga fi nga yegg te xam naa ne bu jotee di nga def jom la fayda kon daal li si des si ñoom ñaar la nañ rafetal entraîner ku si nekk ànd ak say mbokk waajal que le meilleur gagne. xam ne ñoom ñaar ñëpp kenn mësu cee sumeeku say supporter mer nañu jox làmb ji cër jox ko gëdd entraîner comme niñ daan entraîner waaye ki nga xamante ne nii bu kan mi ngi jàll si premier testam bu mag a mag Anta Diène Diouf Kairé lay wuyoo moom itamit ñu ngi koy fësal ci journal moom itamit ñu ngi koy fasal mu mel ne nag maanaam tey test la war a def rek ginnaaw bi nga xamante tey digganteem ak Quench ñu bëri dañ jàpp ne maanaam examen bu raté la bii nag la ne maanaam tey moom mooy test bi gën a mag mag mag a ngir mu gën a mu gën a mu gën a mën a intégré espoir yi nu ñu a parce que si la war a dugg bu bu génnee ci combat bii nii di bëreek nag champion daanaan ni tey maanaam tey dafa daan ay champion gaa ay champion daan ko mais ay ndaanan la daan parce que yaakaar naa ne ku daan Bala Diouf daan Boy Sey daan Bathie Seras daan Zarko daan Baye Mandione vraiment daan nga ay champion ki nga xamante ni tey Modou Modou Anta kon Diène Kaïré maanaam am na lu rëy lu koy xaar Omar. am na lu rëy lu koy xaar di mi ngi bëre koo xamante ne nii mën nañu ne moom moo ko ëpp expérience naam magante bi demeewul noonu boo xoolee ci bés yi mag yi Modou Anta bëre Diène Kaïré bëreegu ko. dayoo yi nga xamante ne ay bësam dina ko am bésu jën am tollagul noonu waaye na xam ne mi ngi bëre xale boo xamante ne bëtam da ko yàgg teg ci mag ñi xale boo xamante ne day entraîné te ragalul waaye bu ñu waxee làmb rek dañu koy décentraliser ndax ki ki ko jël dal ko yóbbu ci diwaanu Gàmbi tas ko muy Jamaïcain fi mu toll nii bu ko bëgg-bëggam yëpp nag moom mooy jël li nga xamante ni moom mooy président wu ci fédération bu Gambie. waaw jël président fédération bu Gambie waaye nag jël bi nag balaa muy am maanaam tey sa candidature dañ koy valider ba pare moo tax tey journal bi maanaam di xam ndax moom Jamaïcain candidature am dinañ ko valider foofu nga xamante ne tey moo di sa Gambie parce que tey boo seetloo moom comme Sénégal la bokk nekk promoteur Sénégal di fi jóge tamit di dem Gambie di tëgg xëy na dafa am licence waaye yaakaar naa tey dina am lu luñ koy laaj foofu noonu wala dina am lu mën a tax ba. ndax dina éligible maanaam tey dina bokk foofu noonu wala dina mën a dinañ mën a valider candidature am waaw am de am tout cas daal nañ yónni yàgg en tout cas daal nañu yónni yàgg rek te xam ne yàgg moom bawul dara waaye ba tey rek ci journal bi nga xamante ne nii Boucar day ñëwaat rek ci làmb mu ñëwaat ci mbirum CNG ndaxte boobu ba waaw boobu ba tey mbirum CNG la rek nga xamante ni tey moo di Pape Mayel bi di samplaaj ba xam ndax maanaam ñaar ñi am dinañ ñëwaat ci a ñëw waawaam déet waaye daal ñaar ñi daal bokk si ñu njëkk a démissionné si nga li nga xamante ni tey Omar moo di CNG boo seetloo nag li si ëpp maanaam tey dañu gis lu leen neexul wala lu ñu mënta supporter tax ñu démissionné woon en tout cas li leer ba leer mooy que ne genre nit ñi mel ni tey soxla nañ leen di leen di copte di leen andi parce que boo nekkee si mbir ba gisatoo fa lu la doy am nga droit def sa lettre de démission man loolu laa nangu mais comme ñi budde woon la fois passée si bureau CNG bi génn budde woon dem sans tàggu wala sans nga def loolu man rafetlu ma ko man li ñuy def maanaam bind sa lettre de démission xam ne yéen a ma tegoon fi mëntuma fi der wala li ma fiy gis neexatuma def sa démission ndaxte benn nit rek bu dee bu dee moom mooy nas du nocci yaakaar naa ne démission bi dina gën a bëri waaye ba tey rek ci mbirum CNG ki nga xamante ni moom mooy Ambroise Sarr et tamit fësal nañ ko ci journal bi. nañ ko ci journal bi moom Ambroise Sarr mu mel ni nag moo tax journal bi di jàpp ne bu ñu amee beneen directeur technique national tey maanaam ndax Ambroise Sarr duñ ko dindi parce que su ma juumul Abdou Badji moo ko fi defoon vraiment tamit mu doon def tamit ay gaa mag la jamono ji na mag mais champion la ndaanaan la depuis ba mu jiitee équipe nationale bi yaakaar naa ne bëriwul fu mu dem tey te andiwul ay médailles ñu koy encouragé si loolu di ko si félicité keneen ku ñëw tamit bu ko fi dindi tamit gëmuma ne dina andi ku ko gën a xereñ waaye daal na andi koo xamante daal maanaam tey na dina def ay résultats comme moom suñu père Ambroise ñu koy nuyu de passage. am na solo torop journal bu record bu ko fi mu nii nag ñoom ñaar ñëpp ñu ngi rey seen bopp ci diin yi waaw ñoom ñaar ñëpp ñu ngi rey seen bopp si diin yi bu ñu rey seen bopp moo leen war bu ñu ko deful moo leen war parce que ku si nekk tey maanaam dafa am foo toll ci làmb am lu la dese si sa carrière nga war ko jaayante loolu nag li koy maye mooy liggéey moo tax na ñoom ñaar ku si nekk xam nga ko ba tax na yaa ngi rey sa bopp si diin yi di yëg ak wàcc rek ngir li nga xamante moo ci nominé bu bees bi nga xamante ni bàyyi nañu ko ci nguur gi mu war a doxal làmb mu war a doxal làmb ba tax na nag tey si xalama suñu grand suñu doyen Abou Ndour mu mel ni ma ko waxee sànq rek moom Matar Ba daal dafa mel ni dafa xaw a fàtte ñi nga xamante ni tey maanaam ñoo bokk ci ci ci ci ci simple gisaguñu ma convoqué si nit te yaakaar naa ne lutte simple Omar kenn mënul wax làmb tey te waxoo lutte simple rawatina tey ak lutte simple li muy am mm-hmm. nga compté lu war a mot cinq gala yu mag yu am diggante fii ba ba Kaolack Fatick Fimela Joal ba ba ba Passy ba Diourbel Thiès en tout cas daal lutte simple daal gisaguñu seen bopp ci ci ci CNG bi génn rawatina nag bii di waaj a ñëw moo tax daal suñu suñu grand Abou Ndour def si jàngat bu mel noonu Omar kon maa ngi lay bëggee. yaakaar naa ne am na solo trop leeral yi loolu rek la woon de. waaw leeral loolu la woon di bëgg rek Paco VIP shop borom Sandaga doom day mbay ñaar depuis France maa ngi koy bëgg di ko ziar di bëgg ki ne moo di borom Daaru Salaam lu ne dinaa ñëw nag dinaa jël si verre yi koy bëgg waaye maa ngi bëgg waa Sandaga ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom laay bu def kooku kenn la ci Lutte ñoo ngi koy bëgg di ko ziar bu baax sama waa ji di bëgg gaa yëpp rek waa Sandaga waa waa waa waa Medina waa Colobane gaa yëpp ñu ngi leen di bëgg di leen ziar Omar. jaajëf.